borom bi Baye Assane Mesere ban déclaration nga bëgg def ci patriote yi ak ñi nga xamni ñom nga fekkon fofu dem nak dégg naa ni téral nañ la téru nañ la waaw légui nak déclaration bi nga bëgg def loolu la bëgg xam wa déclaration bi dé sama bi xana xawa am bétel rek bétel la bétel bi ma am moy bama démé fé lima li ma bëggoon it amut sama pexé lépp dafa na dafa dafa dafa dafa nasax naa lo bëggoon dama bëggoon nit ñi du ñëw wala bu ñëwee du bari loolu nga bëggoon waaw waaye yow woote nga fii ni bu kenn ñëw ma ba ma ko waxee buñ àjjuma ah, jëla kenn demutoon mais bii damaa bëggoon ma échec <laughs> farma li ma jaaxal yow mi woote ne bu kenn ñëw yow yaa dem yow moom yokk mbooloo ma dem naa mais damaa bëggoon lu ma nettali ah loo nettali Ada damaa bëggoon ma échec far sun borom wuy siw ma si échec googi ma nangu foofa dogal beneen bi it ma bëggoon ñu xaw ma faa teg ay jafe-jafe wala ñu naqaral ma ba ma ñëw fii man leen a attaqué mën leen a. ba victimisé wu daal waaw ma victimisé wu ñëw ni gars yi dañ maa xoj dañ maa def lii dañ maa def lee far ma àgg ñu may tungoom di ma jëndal ay boissons di ma yëkkati di ma ñaanal di ma wax nuyu ñu El Hadj Sa Ndiogou son yi vraiment solution toj ngi toj réew mi Baye Assane yaa fi ne. ma ni fii kat nooyut ndax samay soppee fi ne naa dem feneen wet. pour rek moo mën a am ma fu ma dem noona may wër fu ma dem ñu ma yëkkati ma taseeg ñoom koona gaa yëpp naa Baye Assane ngi nii Baye Assane ñëpp di ma nuyu nuyu ñu alaas nuyu ñu soy bu ñii naan Baye Assane loo bëgg dama lay jëlal masir dama lay ñawal Baye Assane yow ci ñoo xam ne da nga doon seet ñu toroxal la waaw waaw ma ne waa lii lan la après ma demaat geneen wet noonu ma ne topp fii daal xam naa ne xaw ma nu may def xaaral après ma daal di fob sama téléphone bi roof ko ndànk wëraat pour bëgg ñu sàcc ñu sàcc sa téléphone waaw sama téléphone bii laa bëggoon ñu sàcc. lii <laughs> la ko ma rof téléphone bi di wëraat di nuyoo di wëraat di nuyoo ñëw ba egg si làmbaat gisaat téléphone bi <laughs> ma ne ah fi mu nekk nii affaire yi mi ngi bëgg a jaaxal ndax damaa bëggoon ñu sàcc ko ma ñëwee fi toog ma ne gone Pastef yi ay sàcc lañ sàcc nañ sama téléphone bi. waaw euh. waaye nangu ñoo sàcc sama téléphone nekk fa di ma jëlal ay mesures di photo man. Euh, mais nekk ko fa naan Sonko mooy ku sell ki mooy ku baax ki. léegi nag déclaration bi ma bëgg a def. Euh. bépp vidéo bu ngeen gis ma tudd Sonko. Ah. wax ci loo xamante ni méngoo wut ak bëgg-bëgg président Macky ah. Ah, ki ko génne dinañ ko yóbbu si yoon. non damay wax dëgg rek xam nga réew mi gars yi mën nañ lu ne surtout waa kër Ousmane Sonko. waaye bëgg-bëgg Macky Sall lu muy wuti foofu. ma ni man bëgg-bëgg président Macky Sall laa fa bëggoon. far amu <laughs> ndax président Macky Sall la ma ko fa déggal du luy baax ci moom du lu baax ci gouvernement bi. yow loo ko fa bëgg léegi déggal. la ma ko fa déggal kay lépp léegi mais la ma bëggoon daal man ci sama bopp la ma bëggoon ëmm ma ko bëggoon naa échec total bëggoon naa ñu sàcc sama téléphone bëggoon naa ñu fitnaan ma bëggoon naa ñu xas ma bëggoon naa ñu yuuxoo ma bëggoon naa yooyu yëpp. Hmm. pour ma mën a ñëw am lu ma nettali mais loolu lépp amul. teraanga daal lañ ma fa defal di toppatoo di ma ñaanal ak di ma encouragé. waaye Euh, da ngaa dem di photo photo Ousmane Sonko am nga yow sax da ngaa jéem a xool Sonko. montage la waaw léegi alaaji lii nag loo ci xam. montage am na ñoo xam ne dañoo jël nee nañu ma dañ ma ko wax de. Mm. jël nañ photo Ousmane Sonko jox ma ko ma yëkkati ko sama ñaari loxo si kaw naan. Sonko président ndigal la ñuy xaar Sonko président ah, ndigal la ñuy xaar. dañ ma ko wax dañ ma ko wax ma ne leen loolu moom amul man waxuma ko fa bis bu amee nag ku ko def dinaa la yóbbu si yoon. waaw léegi Mouhamed Mohamed léegi man photo bi laa bëgg nga wan ko sa euh, jox ma foto bi photo ban am na photo bu may wan nii photo bi photo bi voilà photo bi Mohamed Seck foto bi laa bëgg a xam lii sénégalais yi top mi yëngu ci wàllu monté. waaw lii nag lii kan ah? kenn monté kenn monté wut photo bii yow nii ak bii. ak bii photo lii lii montage la waxatee ngi nii. lii ku ko monté. te yii nag leer na ma ne bari na fi. te am na vidéo yow sa képp koo xamante ni génn na fu ma yore Ousmane Sonko ni ngeen xam ne man tam man radical laa def jëmale si Ousmane Sonko anduma ak moom. waa léegi moom gis-gis. waa waa léegi yow yow même bu fekkee da ngaa radical pour Ousmane Sonko photo bii moom. léegi lan moo tax kon ñu may tegal photo Ousmane Sonko ku radical àllum neen jëmale si kaw Ousmane Sonko ñu koy tegal ay photom hmm. waa waa léegi léegi taxawal. Hmm? léegi vidéo moom ñu ko war a léegi léegi sénégalais kon déglu lii moom dégg nañ yow yaa ne Ousmane Sonko mu sell mi man mi ah, kii de yow. dégg nga <laughs> nee na lu mu wax ci réew mi loolu la ñuy déglu ndigeelam la ñuy déglu ndigeelam. Assane. allahu <laughs> lu mu wax ci te it xam nga ni moo partagé ba partagé ba. xam nga daa xëy di ma envoyé ay information mooy journal yi. waaw ba vidéo bi bokk ci mooy vidéo Macron bi gars yi di di uh-huh. ak ay journal mu boole waale ci vidéo bi xam nga. non Assane Assane c'est que

parce que wan nañ la ko fa. ñun sax boole woon nañ ko ab garde corps. waaw boole woon nañ la ak kenn. waaye garde corps baa mujj moo lay indil ñi ñi war a photo wu teew. <laughs> maa ngi ko nuyu Cheikh la photo wu kii photo wu la kere. Cheikh waaw ndax organiser na ko. waaw organiser loolu nekk loo xamante ne lu am solo la. donc mm-hmm. nag euh, lii day wane rek ne. Mm-hmm. Euh, fitna moom wax dëgg fa yàlla. Euh, nekkul fañ ko foog nekkul fañ ko foog. donc loolu nag nekk loo xamante ne bi lu am solo la. macha allah donc gars yi nga xamante ne bi yëpp ñu nga fa woon di di la bëggee. Mm-hmm. Euh, ñu ngi leen di bëggee. di kontaan ci yoon bu baax di leen ñaanal. macha vraiment kontaan nañ ci ñoomit ci taxawaay mm-hmm. bi nga xam ne amal nañ ko ci bés bi. Mm-hmm. macha allah am na solo. jaajëf.